Donc euh, lui, euh, mon confrère El Adjouf, comme il vous l'a dit euh, tout à l'heure, va s'exprimer en Wolof. Et moi, je vais me charger de la version française de, de ce qui est, de ce qui s'est passé Parce que vous avez constaté que nous avons attendu euh, que la Cour rende sa décision pour pouvoir vous rencontrer et vous rendre fidèlement compte de ce qui s'est réellement passé. Ce matin, nous avons plaidé ce dossier devant la Cour Euh, en l'absence évidemment de M. Ousmane Sonko, qui est le principal euh, prévenu, et qui par ailleurs avait fait appel de la décision, qu'il avait condamné en première instance pour le délit de diffamation. Mais il a brillé par son absence parce que simplement M. Sonko a décidé de ne pas comparaître. Et la Cour en a tiré toutes les conséquences, c'est-à-dire la retenue du dossier et la plaidoirie, la parole donnée aux avocats de M. Mambaïna Et à l'issue de la plaidoirie, la Cour a mis l'affaire en délibéré en fin d'audience. Elle vient à l'instant de rendre sa décision. Et la décision en substance, c'est quoi C'est que la Cour a infirmé partiellement le jugement. Entrepris, c'est-à-dire le jugement qui a été déféré devant elle, elle a partiellement infirmé. Retenu le délit de diffamation, retenu par ailleurs le délit d'injure publique. Et euh, la Cour a condamné M. Ousmane Sonko à six mois d'emprisonnement avec sursis pour les deux infractions. Et a confirmé les 200 millions euh, de dommages et intérêts qu'il doit payer à M. Mambaïna. Mais par ailleurs, la Cour a fixé la contrainte par corps au maximum. C'est-à-dire aujourd'hui, si Mambaïna doit exécuter cette décision et que M. Ousmane Sonko ne, paye pas euh, le montant des dommages intérêts, évidemment, M. Mambagna a la possibilité de l'envoyer en prison par le biais de la contrainte par corps, qui est fixée au maximum par la Cour, c'est-à-dire deux ans. Donc, par conséquent, ce qu'il faut retenir, c'est que cette décision est intervenue. Elle, euh, elle, elle, euh, elle, permet à M. Euh, à M. Mambagna, au moins, d'avoir la contrainte par corps. Cette contrainte par corps lui permettra demain de l'exercer contre M. Ousmane Sonko, contrairement à ce que M. Sonko dit, Mame Mbaye dina dina jot xaalisam il recevra son argent en quelque sorte. Bien évidemment, à savoir si aujourd'hui une telle décision pourra impacter euh, pour euh, les élections. Est-ce qu'il sera éligible? Vous que je peux dire, c'est que les avocats d'Ousmane Sonko eux-mêmes lors d'un point de presse avaient déjà défini les contours d'une inéligibilité de Ousmane Sonko. Donc Donc Ousmane Sonko lui-même ayant été condamné à six mois à sortir du suicide, il est bien évident que si cette décision est définitive, M. Ousmane Sonko est définitivement exclu de que vous voulez dire par euh, définitive que... Définitive, c'est-à-dire il y a des voies de recours, encore. Parce qu'il a six jours à compter de la notification de la décision pour se pourvoir en cassation. Si maintenant il n'exerce pas cette voie de recours extraordinaire, il est bien évident que la décision sera définitive et il me semble la conséquence de caractère définitif de cette décision, de la course à la présidence. Cette fois-ci, est-ce que votre client est satisfait du verdict Nous étions à la phase de l'appel. est épuisée. Alors cette fois-ci, est-ce que cette décision satisfait à votre client Il appartient à M. Ousmane Mais vous, vous êtes satisfait Nous, on est satisfait de la décision. Descendez, madame, madame.

Maître, est-ce que vous pouvez avancer yow maître maître est-ce que vous pouvez avancer yow avancez un peu s'il vous plaît maître. maître va avancer un peu. wàcce leen micro yi. wàcce leen micro yi mu ko jël waaye. grand kenn tiktok yi waaye grand ñu liggéey. jàppale. ah da ngeen def ndànk rek ngeen def wax. kon sa tur noppi di ngeen xaw a laante biir ngeen wàcce micro yi ba wax ak li xew ci jamono ngeen xam tey lii cour d'appel bu Dakar joxe ci dogal. ginnaaw ñu ooyee Sonko ak Mame Mbaye ma di leen yëgal xam ne ñu bëri yëguñu ko yéen waa Sénégal Ousmane Sonko def na appel le 28 bii passé waaye daf koy nëbb ni nëmm mel ni deful appel mel ni mayuñu ko mu def appel loolu yëpp ci ay ni muy doxee rek manipulation rek ma mel ni dañ koy atte sans dem def appel kon def na appel procureur bi waxoon ni nañ ko condamné ci usage de faux diffamation gis ni atte bi ci diffamation rek la ko attekat bu njëkk bi teg mu def appel ndax d'accordul ci loolu mambay ñaa mi laajoon ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent yiñ ko jiiñ ne moom la sàcc te laalul dërëm mu ne comme yaa ma jiñ sàcc ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent yow loolu laa loolu laa lay laaj ndàmpaay ñu nanga waaye ku am fit wax njomme joxe ay chiffre vingt neuf muy sos bu rëy a rëy a rëy waaye ndàmpaay bi koy mën a faj kay mooy vingt neuf milliards rek sa téléphone su dëgg courte que li nga wax giñ ko nit amul mais moom la lay fayee góor ndàmpaay moo tax moo tax Mame Mbaye Niang am na droit def appel procureur bi nga xam ne li mu waxoon faalewuñ ko ci wane ni li muy topp Ousmane Sonko faux usage de faux injure diffamation ñu ñàkkal ko fayda atte rek ci diffamation mu ne man d'accord ma ci dinaa lu tax procureur def appel waaye yéen ba di leen laaj kenn waa presse avant Ousmane Sonko appel yi fii am procureur di ko def pourquoi waxale woon ni procureur Ousmane Sonko moom mooy kan moom mooy kan ba tax lépp lu ko laare ñu mu ko beral ay mbiram xam ngeen affaire viol ese guñ am na fi liberté provisoire bu kenn masul am commune Sitor Ndour amu ko woon ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Yérim Seck amu ko woon waaye moom beral lañ ko ko tey mu sosal benn nit yàq deram benn ministre ministre bi dafa appel procureur dafa appel ñu ne déedéet comme Ousmane la waaye Ousmane mu sell mi kenn amul droit def appel. mais kii yoonu nekk. waaye tey ma ñëw nag ci bi. damay waroon wax sénégalais yi xam ne manipulation bi am. di jàll ci réseaux sociaux yi ak ci presse bi. ñu gëmloo nit ñi ko sax mu def appel. gëmloo nit ñi procureur war soon def appel. naan Mame Mbaye Niang tee moo bàyyi. gisee tribunal bii ñuy atte chaque ñu mës a atte am ñu naan tee moo bàyyi. parce que Sonko la encore tey moo bàyyi appel bi parce que Sonko la encore waaw lu xew lu ñu ragal lu ñu doo bay daanu Sonko mooy kan dafa nopp Sénégalais yi que moom moom ay moom ay la bëgg. est-ce que verdict bi doy na nee na nee na magistrat yi da ngeen démb li mu wax da leen a menacé yéen ci àtte da ngeen xam donc saaga leen menacé leen xam nga loolu garaaw na waaye malgré tout mu ñu jox xam nga juge bu doon ko tëj un an ferme ni ko procureur demandé mais mu may ko six mois sursis dawal laa biir kon Ousmane kenn kenn amul benn acharnement ci kawam justice bii mu ñàkkal fayda président Macky Sall mi muy ñàkkal fayda assemblée nationale bi ñàkkal fayda dafa jóg pour institution yi mu ndërmali leen daaneel leen ndax loolu moo nekk ci boppam verdict bi doy na leen mais kon verdict tey bi ñu lii ci neex mooy tëj biñ ko tëjoon muy deux mois ci loi bi ne war a déparé quatre mois jëm ci kaw ñu jox ko deux mois donc atte bi dafa illégal ndax code pénal dafa ni fu ñu attee ministre yi ci affaire diffamation nga yàq seen der bu ñu lay tëj minimum quatre mois la ñuy démarré mais pas deux mois donc juste bu njëkk bi jox nañu ndam gaa bi mu mel ne Sonko du wax dëgg ni Sonko mosul wax dëgg te dafa yàq déroulement mbay ñaa ñu ko tànk waaye peine bi ko jox ñaari weer yi yoon da koo dàq nen mënu mënu ko ko jox ñeenti weer ñeent lay commencé jëm kaw ak sursis ou pas sursis kon juge bu njëkk bi li mu àtte woon dawul du yoon moo tax procureur def appel procureur moo fi nekk société bi yëpp bu gisee ne àtte bi jaarul yoon day def appel nekku fi pour Macky Sall nañ bàyyi loolu ñuy wax. est-ce que mën nga ñëwaat ci li maître wax léegi ci li nga xamante ni moo jëm ci candidature bi tey jii liñ ko daan. dama ne candidature bi intéressé xam nga ma intéressé. àtte bi kenn tudd fi ay candidature. boo defee sa ñomme moom sa mas da koo wax. def sa seytaane def yu xam ne dara baaxu ci. sosal gor am ministre mu yóbbu la ci yoon waaw buñ la fa condamné tëj la. bu dee tëj ba mayu la nga dem nekk candidat waaye léegi du yàq ta sa bopp tubaab nee na nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude mooy lépp loo def loo xam ne dalay lor bu la loree sa affaire la bu dee da ngaa dof wala nga jombi wala nga rakkaaju ba def loo xam ne yow en tant que chef de parti candidat bëgg yore réew mi te lii nga def du defin bu baax li nga def yoon daf koy dàq li nga def yoon dana ci condamné te bu la ci condamné a bokk waa léegi nag est ce que Macky Sall la boo yemoon fa nga war a yem bañ a tooñ jàmbur bañ yàq deru Mame Mbaye Niang bañ ko sosal bañ ko fenal tey lii du la ci du la ci fekk waaye maa ko def te kenn du ko wax olom Ndiaye mu ne déet waaye déet yaa ko def yaa ko wax te war a koo wax. waaw loolu dafa tuuti. ndax fen wi daa rëy mais yow maître boo nee moom moo fi daf ko sosal te alors que y a des livres écrits comme Birahim Seck Forum Civil mu wax ci même dossier Mame Mbaye Niang ni dafa détourné effectivement quatre-vingt-neuf milliards yooyu mais est-ce que où est le problème maintenant man ku tardé aw ma réponse a yow ñi ñi nekk ci jamono laay waxat Birahim Seck kenn dégg ko fi tey ci àtte bi ku mu nekk bi lu la neex waxte lu la neex intéressé wuñu xam nga lu ñu intéressé fenn wu réew yi ñu fenal Mame Mbaye Niang ki ko fen mënul ñëw ni lii fen la mënul ñëw ni lii dëgg la dindi fen wi mais may leen bu leen ma secrétaire xam ngeen ma du ñàkk ma fee daf leen ma dàgg dama ni ki sos sosu réew wi deru jëkkëru jàmbur doomu jàmbur papaay jàmbur ministre jàmbur yaakaaru ay ay nga taxaw ni seen waa ji sàcc la lim sàcc lu pata la ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent la Mame Mbaye Niang rendal ti ñoo la mënoo fi koo firnde mënoo indi preuve bi tekki taabal ji yoon mu ne boo sosalee gor yàq deram am na droit dem ci tribunal fii ma xana nekkee benn comme yaa yàq deram yaa war indi li wane ne yow yàqoo deram waaye boo ne yow tey dangaa feebar suba da ngaa jommi ginnaaw suba sa biiree daw ginnaaw suba sa bëtay meti tey nga taxaw menacé nit ñi dem si question ne maa bañ lànk ñëwuma xale yi wàcc si leen gunge leen ba tribunal waa déposé rapport bi wane ni Mame Mbaye Niang moo sàcc jar na xale yi wàcc si leen xale yi fekk leen ba tribunal dañu ànd taal dëkk bi waaye comme léegi ma Macky sal newoon na leen rien ne sera plus comme avant nee na leen billahi li fa amoon di amaat taal kër yi ba taal sama man taal nañ kër taal station Auchan yi li wala ñu ngi leen di ci mbedd yi bu dee dañuy jaay bandi rek lépp lu ñu jaay état bi da ko jënd barka yore ci bi